mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëriñ Cheikh Sylla di ndaw lu xam-xam ak gëstu ñor moo bind ab téere bu yees jëm ci wàllum tasawuf maanaam soufisme di téere bu am solo mu bind ko ci ñetti at livre bi nag jamono bi génn na ñu war a amal cérémonie de présentation bi ak jàngat téere bu am solo bi lee mi ngi war a doon jeudi 1er avril 2021 ci salle de conférence bu résidence Xaadim Rasoul bi nekkee ci Daarul naan livre bi nag ginnaaw bu ko Cheikh Sylla bindee jébal na ko sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir général Hamid mu xool ko rafetlu ko bu baax waaye nag laatay livre bi di génn ay boroomi xam-xam yu kawe jàngat nañ ko saytu ko bu baax a baax bisu présentation bi daañu fa amal waxtaan wu am solo jëm ci tasawuf ñu ci ànd ak Serigne Ahmadou Mbacke bu Daarul Monti ay discours yu am solo daañu ko fa yi ak i jàngat jëmee ci téere bile bis boobu nag Serigne Cheikh Sylla mi ngi ci woo ñëpp mi ngi ko dara jaale Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Souhaïbou Serigne Abdou Samad moom Cheikh Abdoul Khader Serigne Ahmadou Badawi Mbacke moom Cheikh Ahmadou Fadal soxna maam Issa Mbacke Ahlou Café ci njàppaleb ki nga xam ne moom moo ko jàngal muy Serigne Khalil moom Serigne Bassirou moom Cheikh Amadou Fadal Abdoul Fatah Gueye Touba Technoplus journaliste bi nga xam ne moo di Pape Djibril Fall bokk na ci invité yi nga xam ne ñu ngi leen di xaar ci cérémonie bile Serigne Cheikh Sylla mi ngi ciy woo mbokki jullit yépp ak mbokki taalibe yi bàyyiwul kenn rawatina mbokki boppam yi jiital ci ñaari waajuram ak mbooleem askanu Sylla jiital ci Serigne Moustapha Sylla ak Serigne Khadim Touré cérémonie bi jeudi 1er avril 2021 lay doon ci salle de résidence Xaadim Rasoul ci Touba Daarul Manaan bu 16h jotee cérémonie bu présentation bi Cheikh Sylla fas yéene ci ànd ak Touba Techno Plus Habibi Odiwan Tawfekh Café Rafa TV Siweul point net Touba Info Assalaamy TV Académie Minan waaye Alhimma TV dana ko diffusé en direct ci Facebook bi Serigne Cheikh Sylla mooy ñaanalaat Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu